Kabaro man militant Macky Sall la wax dëgg yàlla président Macky Sall militant la donc fu mu ma teg foofu foofu laay foofu laay dem lu ma wax lool lool lool lool laay jàpp mais dama gis moom nekk le président Macky Sall nitu nitu nitu jàmm la euh, bu ñu xoolee son son cursus son parcours fu mu fu mu ñëw fu mu jaar jàmm lay def waxu jàmm lay def euh, Sénégal nag wax dëgg yàlla ku bëgg defar Sénégal ci tànk boobu ngay doxee ku bëgg yàq Sénégal nag bu fekkee da ngaa bëgg indi ay fitna ay affaire yooyu wax dëgg yàlla dañuy fekk si yoon Ah, man nous sommes sommes sommes assez déterminés euh, Sénégal da depuis bu ñu amee indépendance ba tey mosuñu yegg fu ñu yegg nii te am na loo xam ne ñun ñoo ko moom boo gisee Sénégal réew mi par exemple kii relation bu am entre les chrétiens et les musulmans Sénégal rek la amee boo gisee relation bu am entre entre entre entre les ethnies Sénégal rek la amee. boo demee ci yenn réew mi yu mel ni Gabon yu mel ni Congo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo kiiyee sax boo attaqué quelqu'un sax verbalement sax nga koy tooñ sax bu moytu nga am ci problème donc loolu loolu il faut ñu xoolaat ko si fii Sénégal rek ngay gis séeréer pour la première fois nga dokk doon pour tukulóor nga nga nga nga accroché ko mu jàll wala mu reetaan dem yoonam cousinage cousinage boobu dafa am solo donc bu ñu demee ba yàq ko ba duggal xel ci ci biir nit yi nekk kii daf la bañ kii bugg la kii bugg la yeneen réew mi Rwanda fu mu dugg fa la ñu dugg yee est-ce que yéen a ngi xalaat ne Rwanda fu mu jaar ndax bëgg ngeen Sénégal jaar fa ndax pour le plaisir de quelqu'un wala pour juste kenn ki am nguur am na loo xam ne nguur jaru ko am na loo xam ne nguur jaru ko ku nekk ak sa bàmmeel ku nekk boo duggee sa bàmmeel ku nekk ak yow yow da ngay jàkkaarloo ak yàlla de sa fait que ku nekk nga xool tamit lu intérêt réew mi intérer réew mi c'est la paix ku nekk bu lekkee ci dëgg nga toog dëgg nga war nga nga si dëgg ngay doxee wax dëgg yàlla jàmm nga war a doxee te te te ku nekk ku nekk fii ni ku ku toog ci place nguur gi tey wax dëgg yàlla ku nekk président de la république jàmm moo tax ba nga doon amul kenn koo xam ne fitna moo tax ba nga bëgg a toog Sénégal est le seul pays boo xam ne mën naa ko wax ne que musul am di d'état loolu boo ko gisee c'est parce que nous avons de valeurs yoo xam ne respecté nañ ko te nañu continuer di dox loolu force musul régler benn problème fitna rek lay indi te kenn buggul fitna suñuy doom yi ñooñu lañ ci dugal ñoom ñooy dem sanku ci ñoom ñooy dem am ci problème ñu ñu ñu ñu mujjee am am loo xam ne daf ñu naqari nañu bàyyi xel ci loolu donc la génération future ne ne mérite pas euh, ce ko ne en train de faire aujourd'hui wax dëgg yàlla nañu nañu nañ nañ nañ ko doxalee ci ci mbir bu rafet donc euh, ethnicisme wax dëgg yàlla euh, baaxul waaw nañ ko bàyyi